salaamaaleykum gars yi yéen ñëpp yéen a ngi yaakaar ne jotuma ci vidéo Serigne Modou Lo Ngam bi jot naa ci de mbàkke mbàkke bi jot naa lépp c'est que damaa damaa dëgg sama tànk rek xam ne kilifa la te bari nay taalibe ma ne naa ko suturaal man am naa ay preuve yoo xamante ni sax amuleen ko waaw jabaru taalib bi nga xam ne moom la doon defar appel vidéo yi ak di kat am naa ci lu tolloog huit appel vidéo yoo xam ne li ngeen gis si YouTube bi mosu leen koo gis quatre cent audio waxu taat rek la ci wax ak waxu ca caga kattanteeg ah sama koy bi nii nangam nangam bu ma la kattee nga xam ne lépp mbaageg moom damaa téye sama bopp rek xam ne kilifa la dañ koy suturaal moo tax kaawuma ko maanaam woowuma ko ci live bi wala ma def live di ko saaga wala di ko manquer de respect yi ngeen gis ci YouTube bi noonu gaa yi di wane non loolu ñëpp ko am yor naa bagage yoo xam ne kenn yoru ko kenn amu ko ci yéen te ki ko doon enregistré ah jabaru taalibe bi la bàyyi ci biir